invité de la rédaction mbokk internet yi seetaan euh, Sunugal 24 ñu ngi leen di euh, nuyu bu baax a baax ci am contenté ak mbégte teewaat euh, fii fas yéene dalal comme ni ñu koy defee à sunu ay invité tey nag ñu ngi dalal ku ñuy wax Abdou Sarr moom mu nekk coordinateur national bu UJAT UJAT nag mooy union des jeunes avisés pour le développement mu ànd ak ku ñuy wax Ndeye Yacine Tall Ndeye Yacine moom mi ngi jógee ba Ziguinchor moom mu nekk coordinatrice UJAT bu région euh, de Ziguinchor maa ngi leen di nuyu bu baax euh, Abdou. maa ngi lay nuyu ma. <laughs> Euh, Yacine maa ngi nuyu. maa ngi lay fay. alors ñu daal di commencer waxtaan bi Abdou yow yaay coordinateur national bu UJAT muy union des jeunes avisés pour le développement alors lan moo tax ngeen taxawal kuréel boobu. merci beaucoup merci beaucoup Makhou maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Sunugal 24 yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa union des jeunes avisés pour le développement. Abdou Sarr la comme ni nga ko waxee USAID nag boo ko déggee mooy union des jeunes avisés pour le développement ñu taxawal ko pour contribuer au développement durable et viable de notre pays. kañ ngeen ko taxawal. mois de d'août passé une année lañ doog jeudi passé dañ am une année 13 août 2019 lañ taxawal mouvement boobu. Hmm, lan ngeen lan ngeen jàpp ne bon moom moo tax nga taxawal ko lan moo manqué ci jeunes yi wala lan moo manqué ci côté politique jëm ci wàllu ndaw yi ba tax ngeen taxawal association bu mel nii. waaw gis ne bon euh, dëkk boo gis boo bëggee wax développement faw nga dem ci couche bi gën a solide bi nga xam ne ñoo am doole liggéey ñoo am doole sakku xam-xam muy jeunesse kenn mënul wax développement bàyyi leen ginnaaw yu rendre compte ne suñu dëkk jox nañu lépp te fu mu toll tamit pour mu yéeg ñun rek ñoo ko mën a yëkkati téye ko di dox ak moom te tax tey ñu leen nous sommes des jeunes avisés comme noon nom l'indique dañuy jóg liggéey pour suñu askan pour avancé loolu daal suñu def gis nañ ne développement warul jóge ci état mais ñun communauté bi la war a jógee loolu mooy suñu conception mooy suñu vision ba tax ñu taxawal kuréel boobu tey mu nekk kuréel bu wër dëkk bi yëpp àdduna Sénégal yëpp euh, pour contribuer au développement de notre pays. d'accord contribuer au développement euh, de votre pays mais euh, dafay laaj ay moyens yu bëree bëri bu ñu xamee développement ni mu ni mu mel ni mu diisee. Euh, ku wax développement di nga wax moyen les moyens qu'il faut pour nga mën a développer euh, mais yan fan ngeen di sukkandiku pour mën a euh, amal liggéey bi nga xamante ni wax nga ko fi léegi. oui c'est vrai moyen moom bokk na ci mais principe de base pour ñun parce que daa am lu ñu manqué. mooy ak lu mu mënti am te xel yi changé wuñ tam ñu dem fenn. donc sensibilis la sensibilisation suñu point fort la dañuy changer d'abord les mentalités ba pare ñu ne dañuy def recours ci suñu moyen bopp lu ñu mën a defal suñu ñu jóg def ko bañ cee xaar kenn. moo tax kuréel mbaa ngi noonu jeune ñoo ci nekk bi léegi amuñ benn partenaire benn homme politique wala beneen autorité dugali ci loxoom te pourtant ñu ngi réaliser lu bëri ci dëkk bi te ay del jeune ñoo sumee ay étudiants kër di ci def seen i bourse di cotiser ak seen maigre moyen pour contribuer ci développement. seen ci ci ci phase sensibilisation fi ngeen toll. oui sensibilisation installation mais ñu ngi réaliser tamit. lan ngeen réaliser pour le moment. lan mën a jàpp ne lii UJAT euh, moom moo ko réaliser. voilà ñu teg si ñu mën ci teg loxo. waaw ah, loolu bëri na ne ISRA euh, trois domaines de prédilection la am. domaine éducatif domaine agricole ak domaine environnemental. domaine bu nekk dama la ciy jox benn point rek pour résumer en fait. Mhm. domaine éducatif bi depuis daaw vacances su daaw ñu génne woon nañ benn plateforme. Mhm. ñu ci def ay cours de vacances pour suñu rakk yi. Mhm. organiser woon nañ tamit benn concours bu ñu tuddee concours CIES concours inter élèves pour le culture de l' excellence boo xam ne USAID réalisé na ko. demee tamit ba pandémie bi dugg xam ne dina impacté ci système éducatif. yaakaar naa bi usage jógee di def cours en ligne boobu sax état démarré bi pandémie bu mu duggee rek am plateforme waaw am ñaari plateforme pour les élèves de la troisième et pour les élèves de la terminale ñu wut ay professeurs ak ay étudiants dans leur domaine ñuy dispenser ay cours pour les élèves de la troisième et pour les élèves de la terminale. c'est important bu ko boobu état sax je pense bien démarré boobu mmh, mmh, mmh, am na solo continuer dans le domaine environnemental def nañ ay journée cleaning day set setal même lancé président appel bu mu doon lancé zéro déchet yooyu boobu tam bu ñu démarré président démarré wu ko mm-hmm. ñu def ay set setal euh, dans beaucoup de communes au Sénégal yoo xam ne jeunes yi nañ dans les écoles mm-hmm. ñu def ay set setal reboisement également USAID démarré na ko même mois d'août bi lancé nañ ko lancé nañ procédure de reboisement am na commune yu ko démarré à l'image de Louga mm-hmm. donc c'est des comment formation des groupements féminins également par rapport à la transformation des produits locaux UJAD démarré na ko juste pour vous dire en résumé que trois domaines de prédilection bu nekk UJAD am na lu mu fa def te c'est des choses concrètes yoo xam nit mën na ci teg loxo. Mhm. d'accord UJAD euh, na un an. Euh, mois d'août lañ ko créé woon bële donc am na un an am oui ñu ngi ci procédure récépissé donc amagu leen non finalisé gu donc mais <laughs> mu ngi ci loxo administration voilà mu ngi ci loxo administration mais bon statut juridique yeeg règlement intérieur yëpp pare na mais ñun li ñu mën mooy déposer def procédure yi mais gis ngeen pandémie bi chaque jour lenteur administratif moom moo ñu téye mais au delà de ça ni waroon a fekk suñu loxo récépissé nekk suñu loxo bu yàgg yàgg mais lancé nañ procédure yi quand te ñu koy suivre bi euh, du ministère euh, war ngeen war uh-huh. euh, nii également yéen a ngi koy liggéey ba pare da ngeen war a am ay kayit yu leer oui oui oui si parce que nit ñi pour ñu jàppale leen il faut ngeen am ay kayit voilà très bien très bien très bien faw ñu am kayit donc ñu nekk ci benn contexte coronavirus muy crise sanitaire Euh, buñ ko mënee tuddee noonu UJAT regroupé ay jeunes alors ban liggéey ngeen def ci coronavirus. oui corona ñu bëgg a sonn de parce que instant bi coronavirus bi lëmbe na réew. waaw ah. waaw lëmbee na ci def. waaw coronavirus kay tu as raison lëmbee na àdduna ngay wax jaaxal yi aadama. Mhm. mais UJAT jóg na ci taxaw di sensibiliser guddeeg bëccëg di déployer ay leur maigre moyen yaakaar naa bu mu duggee. Eh, premièrement groupe WhatsApp UJAT bu Louga laa njëkk a dégg ñu lancé ñu lan lañ mën a def pour servir suñu communauté ñu commencé def seen i maigre cotisation di jënd ay masques di distribuer di def ay sensibilisation nuyu comme jour di ci am sax ak les autorités donc yaakaar naa sensibilisation bi usage ñu ngi ci man mi chaque jour damay posté ñoom de Yacine Tall ñëpp dañuy ay vidéo di sensibiliser di dugg ci ko ñi di sensibiliser yaakaar naa euh, mouvement usage daal taxaw bu mu taxaw ci pandémie bi euh, bu leer la te am nañ bi ñu page Facebook boo xam ne dañ fay def ak publication pour conscientiser population bi à ce jël en garde par rapport aux mesures qui ont été édictées par les spécialistes ok Abdou Sarr moom mooy coordinateur national bu IJAT Ah, bu ñu waxee coordinateur national nag ci réew bi yëpp mm-hmm. ah, donc ba tax na ñu am fii euh, da Yacine mm-hmm. moom mooy coordinatrice régionale bu Ziguinchor tudd nga fi également léegi Louga ah donc IJAT am na IJAT am na doole ja yéen ci région yëpp da Yacine maa ngi lay nuyuwaat <laughs> eh, di la bàyyi nga daal ñuy wax euh, situation bi foofu euh, IJAT foofu ci fi nga xamante moom mooy Ziguinchor waaw maa ngi lay fay bu baax di rafetlu invitation bi di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan aussi Euh, di wax ne que Ziguinchor instant bi euh, phase d' installation la ñu nekk comme ni ñu ko waxee parce que bu muy yegg si foofu dafa tombé ñu nekk ci plein crise mais taxul ñu bàyyi suñu loxo nekk si installation kese euh, xool nañ tamit nan la ñu war a mën a def pour xeex ki corona bi du coup bon vu que dañuy door a tàmbali ak des maigres moyens dañoo obligé donc ñun ñu basé wu ci sensibilisation bi ndax tamit c'est important euh, du coup dañu doon def ay affiche mm, di ko di ko afficher partout dans les rues euh, di jàppale ni ñi bu baax a baax képp ku nga xam te ne tase nañu ak yow nga yor comportement bu nga xam ne c'est pas adapté ñu expliquer la comment ça doit fonctionner et tout côté boobu la ñu gën a di suñu liggéey en fait. alors Ndeye Yacine euh, comme ni nga ko waxee. yéen a ngi euh, en phase de d' installation foofu ci am ngeen feuille de route boo xam ne si nii euh, war ngeen ci mën a liggéey à part li xam ne si moom a coronavirus foofu ci Ziguinchor. ah exactement loolu moom mënul ñàkk parce que boo xasee ba taxawal mouvement pour liggéey rek danga war am feuille de route donc ñun comme mouvement bi def am lu mu tënk ci domaine yooyu la ñu war a liggéey. muy environnement agriculture ak euh, éducatif donc si loolu yëpp teg nañu suñu plan euh, nu mu tuddati kii bi rek a des euh, déroulement bi. kese moo des waaye exactement lan moo des mu ngeen ko da ngeen amul xaalis wala lan moo bon faute de moyen ci la mais aussi lu lu gën a am solo vu que yenn rassemblement yi dañ koy interdire. Mhm. donc pour commencer ñun suñu journée de lancement la ñu war a njëkk a def d' abord bu ñu ko defee ba pare ñu door a jàll ci travail proprement dit bi. Mhm, parce que euh, Ziguinchor moom yaakaar naa bu ñuy wax wàllu mbay moom yaakaar naa euh, du fa am problème. non euh, noonu. donc war ngeen a a yëngatu bu baax. exactement surtout jeunes yi nga xam ne si ñu ngi foofu ñu mën leen téye également ci localité yi. exactement exactement ñu mën a liggéey pour seen terroir. Mhm, c' est vrai le côté boobu noonu réfléchir nañ si bu baax a baax teg nañ si ay Euh, parce que comme nuñ ko waxee nit ku nekk da ngaa war a profiter si sa atu yi nga am donc euh, côté environnement bi euh, teg nañ si ay plan yu nga xam te ne am na solo torop torop surtout dagg garab dagg garab bi foofu Ziguinchor gars yi ñu commencé dagg. <laughs> voilà déjà am na benn. Ah, am na benn àll bi foofu noonu. forêt waaw c'est vrai mais am na benn suñu si suñuy plan am na bu si mooy maanaam dañu prévoir que ni. Euh, kër gu si nekk dinañ ñëw waxtaan ak yow genre dañ lay tegal benn euh, pot d'ordure pour bañ déjà euh, malit mi bëri fa bu ñu ko tegee ngay fay régulièrement après ça bu ñu demee ba gis ni que évolution am na ñu planter la benn arbre sa buntu kër genre juste pour wane que ni pour t'encourager pour nga gën a continuer si lancer boobu noonu. Ziguinchor amul inondation xanaa. am na mais bëriwul noonu. demul parce que suuf si dafa baax. si daf koy jël. waaw mais am na ay côté yu nga xam ne. waaw du ñàkk. alors mën ñu ñëwaat ci Abdou Abdou UJAT union union des jeunes avisés pour le développement ñaata membre ngeen comme war ngeen Sénégal xanaa war ngeen toll ci ay des milliers xanaa. oui oh, des milliers. bon en bi teg na. 5000 maa ngi doon def. Eh, Euh, calcul bi jour jour anniversaire bi. Mhm. mais euh, li ma jàpp daal gis naa bi 5200 jeunes yoo xam ne ce sont des membres actifs yoo xam ne côté yi ngi yaat partout à travers le pays ñeneen ñi sax ñu ngi extérieur nekk am membre UJAD di indi seen xalaat ak seen i doole. Mhm. mais am 5000 5000 jeunes. Mhm. yaa ngi dégg suñu participer ku nekk 1000 francs par mois. day am xaalis am xaalis. effectivement est-ce que yéen a ngi jéem a euh, est-ce que yéen a ngi respecté wala su fekkee yéen a ngi koy def sax mooy ay cotisation su ngeen amul ay soutien. Euh, yoo xam ne si ni mën na jóge à l'extérieur yéen ngeen demal seen bopp bu ko leen ci fekk fekk leen ci voilà c'est vrai mooy li wax ñun euh, yoon ku ñu ci fekk jàppale ñu tambi mais ku ñu ci fekkul tamit ñun dañoo jël mhm. ci plateforme bi pour mettre sur place un projet tous les membres dañu confectionner ay carte nationale dañ koy jaay tous les membres à 5000 francs imaginez 5000 à 5000 francs ça fait mhm. millions yi dañ koy def dépôt soit crédit mutuel soit au niveau des banques d'ailleurs mhm. bu ñu ko déposer au niveau des banques ça va permettre aux jeunes de se former en GIE mhm, dem loolu fonds de garantie lay doon mhm, boo xam ne jeunes yi dañuy dem maintenant au niveau de la banque avec leur projet rentable banque financée la ñu mën a dem ñu a dem liggéey seen bopp loolu dina wàññi taux de chômage bi te dina jàppale jeunes yi également ñu am esprit de créativité entrepreneurial loolu yaa ñu ngi ci ñu ngi ci initiative boobu. Mhm. ci biir waxtaan bi ñuy doon waxtaan léegi ci euh, coulisses yi. Mhm. yaa ngi wax que da ngeen di organiser benn Jeunes ANAR xam ne nii c'est national. ici à Dakar. alors ndax maa loolu nga leeral ko ñi xam si ñoom ñooy seetaan. ok c'est vrai concours boobu euh, waxoon naa la def nañ ko niveau de notre commune. Euh, mhm. l'année dernière léegi dañ ko bëgg a installer def au niveau national. léegi dañuy jël chaque dans toutes les quatorze régions chaque région sera représentée par cinq élèves ñu ñëw Dakar ils vont compétir. ñu tuddee ko CIES concours inter élèves pour le culture de l' excellence. ça va permettre aux jeunes bu ñu gisee seen morom yi nekk à di di def di jongante day tax seen morom yi nekk dëkk ba gën a góor góorgóorlu. parce que gis nañ ne tamit dëkk bi bëri ay diplômés mais xam-xam daf raf rafetlu. mais loolu Abou xaalis la bu da ngay jël da ngay jël ay nit euh, yi gën leen fii à Dakar donc ça demande beaucoup de moyens. oui hébergement beeg euh, lépp restauration. lépp restauration logement oui oui je sais c' est des millions. c' des millions euh, oui c' vrai mais bon. boroom xel lépp lu mu mëbët war na ko mën a mën a def. Mhm. deuxièmement juróomi junni nit fu ñu daj dajaloo te gëm lu ñuy wax ak lu ñuy dox yaakaar naa lu ñu sum war nañ ko mën a daan. Mhm. ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne tend pas la nommer aux autorités dañ leen di tendre la ministre de l'éducation nationale est là c'est affaire am la. ministre de la jeunesse est là mooy suñu ministère de tutelle dañ leen di tendre la mhm, ñu ñëw secourir ñu jàppale ñu pour parce que suñuy rak gis ngeen ne pandémie bi impacté na ci éducation bi cet année ce que veut dire que la baisse des niveaux dina amaat donc loolu yëpp dañ ko war a prendre en considération xool nañu def pour relever le niveau uh-huh. en ce que vraiment eh, éducation Sénégal amat beneen am niveau bu mu amoon logique uh-huh. excision des filles Casamance bu ñu ko waxee wax excision des filles loolu tamit xam naa hmm? di ngeen ci euh, liggéey lu bëree bëri parce que euh, am na ay ONG yoo xam si sax ñu ngi ci hmm? euh, xam naa man ngeen leen approché hmm? pour ñu financer leen ngeen liggéey ci comme association ngeen bu nekk foofu. Hmm, exactement exactement parce que lépp UJAD moom dafa jóg pour lépp lu nga xam te ne rek jaarul yoon ñu jéem a xool nu ñuy defee pour mun a teguwaat ci yoon delloo lépp dans l'ordre faire notre maximum daal. mais excision bi foofu noonu war ngeen si mën a xeex parce que nekk na loo xam ne si nit. bien entendu lu bëri foofu noonu. bien entendu dinañ si xeex gars yi wax nañ dañuy bàyyi mais maire yi ba léegi ñu ngi def affaire yi. waaw waaw c' est vrai que dañ koy def euh, en cataminique. en douce voilà c' est vrai que ñu ngi koy def mais daal euh, UJOT dina si def lépp lu mu mën pour mu jeex fi daal. d' accord alors invité de la rédaction tey jii euh, waa UJOT lañu lañu invité woon muy union des jeunes avisés pour le développement ñu waxtaan seen ay projets yoo xam ne si nii. Euh, am nañ ko jëmale ci réew mi euh, Abou dafa lay bàyyi nga daal di euh, def sa kàddu bu mujj yëkkati jotaay li ñuy waxoon ci daax ci waxtu daanaka jaax na ok merci beaucoup Makhou avant ma yëkkati jotaay bi dama leen di remercier yéen waa Sunugal 24 dañ leen di suivre ci seen liggéey bu rafet macha allah ñuy rafetluwaat encore une fois invitation bi di leen jaajëfal encore une fois te di leen encourager. Uh-huh. di leen wax ne te fi ngeen ko jàpp foofu la jeunes yu mel ni yéen rek la ISRA di wër d'accord ñëw leen ensemble ñu liggéey pour suñuy dëkk bay remercier encore une fois sama coéquipière bi euh, jigéen bu mën góor la nag <laughs> muy ci phase d'installation mais j'avoue que les grands les grands projets autant pour du mouvement UJAD li ci ëpp bokk na ci ñi koy xalaat d'accord ci projet bi euh, carte vente de carte au niveau national moom moo ma ko njëkk a il faut ngeen ko pour am ay voilà effectivement ñu liggéey suñu dëkk dëkk ko moom ñu bañ cee xaar état bañ cee xaar Massamba bañ cee xaar Madimba ni ci état wàll noonu la ñu développer suñu dëkk appel boobu laa lancé à tout un chacun et te di remercier encore une fois waa mouvement IJAD yëpp. merci beaucoup euh, Ndeye Yacine. Mhm. lay tàggatoo. Euh, di leen remercier bu baax a baax ci invitation bi di wax ni que ñoo ngi woo jeunesse su Sénégal bi yëpp ñu ñëw bokk ci mouvement bi ndax c'est vraiment important. Mhm. Euh, di wax ni que bu leen fàtte tamit ni coronavirus bi mu ngi fi ba tey ñu respecté bu baax mesures yi. alors kon mi ngi noonu waa IJAD la ñu dalaloon tey. ñu leen di remercier bu baax ci euh, répondre bi nga xam ne si def nañ ko jëm ci wàllu sunu invitation euh, mu ñoo xam si disponible ay xale yoo xam si am Pastef lañ ñu leen di ñaanal en tout cas euh, projet yi ngeen fi wax yëpp ngeen ngeen mën ko réaliser ah di leen jaajëfal également bi gi moom moo nekkoon ci réalisation bi Fego ak Fabi ci wàllu technique bi également ba léegi ñu leen di jaajëfal yéen ñi nga xam si yéen a nekk ci biir réew mi ak bitim réew invité jaa ngeen